léegi sax balaa may dem ci Pape Djibril fal dañuy ñëw ci ñi nga xamante ni parce que aussi tamit dafa am loo xamante ni bi dafa xew xewoon parce que dafa am ñoo xamante ni bi tey dañ ñu gëmloo woon ay preuve yëkkati seen kàddu pendant de mois ñu fattuñu di ñu xamal nañu ëy bu bis baa ba ñëpp di xaar naan bés bi nga xamante ni bii kat bés bu ñëwee toroxtaanee dana am képp koo xam ne àndoon na ak Ousmane Sonko da nga yàqu bés boobu nag ñëw ñu xool ni nit ñi doon waajalee bés bi ak ñan ñoo ci doon faral di wax di ci yëkkati ay kàddu di wax naan ay bés ba je vous en prie. di wax ak yéen ma laaj leen dana fa ay preuve xam nga yaa ngi wax ju bari. preuve Adji Sarr génne du too wax ci Sénégal su te si waxaat. Adji Sarr moom ci ay ci ay manœuvre am Ça, je le dis, je le répète, parce que Gisnako, il a eu à voir des, des images d'Ousmane Sonko. Ça, je di dit, euh, parce que il faut, il faut aussi ma préciser benn affaire. aji Sarr bu jàppee ci procès daaw ba ren. te buñ déggee interview mi mu ni état bu Sénégal daf ko lâché dañoo ragal Ousmane Sonko bu jàppee ci procès daaw ba ren c'est parce que am na ci lu mu jàpp ci lu dëgër. parce que Momo Cissé dafa confirmer ñun lu yàgg di wax. mooy dafa am ay preuves. yoo xam ne ci kaw Ousmane Sonko te bés bu ñu tegee procès Ousmane Sonko il est foutu à jamais ndax li Adji Sarr yow Adji Sarr am na yu diis yu yu rëy yu pataa néewu ko dafa toog ne day bàyyi ba procès ñun ñii am na yoo xamante ne dañ ko bëggoon a wax dañuy ne ñu bu leen ko wax ngir yàlla parce que bàyyi leen ba procès xam nga dafa doon contrôler xale yi buy ñëw saa yu ñëwee day laal sax perruque yi làmbatu xool ndax micro dugaluñu la micro làmbatu xool sa yaram yi palpe day palpé xale yépp yi ci salo bi palpé seen i xool perruque yu ndax am na micro wala caméra bu ñu fa def jour boobu ba mu demee ba ñëw jógee aéroport jëli xaalis ba mu ñëwee palpé wul donc comprendre nga wax bu yegg dafa ci yegg waaye am na jamono mu toog ba ci yàgg ne waaye lii day nuroo caméra de il n'est pas allé regarder vérifier vraiment ndax loolu caméra la. c'était une caméra. lii lu mu doon wut ci procès lii de ñëpp xam nañ ne pour visionner ay vidéo la lii Sonko moo yey daw par yey daw daf vidéo sans vidéo lii nii nii nii defuñu ko pour dafa ñëw naan A B C D déedéet ba Adji Sarr di dem bureau doyen des juges ba Ndeye Khady di dem bureau doyen des juges ainsi de suite ainsi de ñun yëguñu xamuñu lu fa am waa léegi nag gars yi ñu ne lépp duñ ko joxe bureau doyen des juges luñ koy joxe mooy jour procès devant tous les sénégalais ñëpp ñëw toog seetaan lii mooy li nga xamante ni pendant mois sénégalais yëpp ñu ngi ko doon bàyyi xel ñu ci bari léeg-léeg ñu yëkkati ay kàddu wax ni ay preuve am na ay buñ ko tegee Adji Sarr li mu yor ay preuve yu grave la yor ay vidéo dañuy tekki bi sénégalais yëpp seetaan ñu gis daal di xam parce que Adji Sarr moom ci jëmmi boppam wax na ni wax tuumaal ki nga xam ni moom mooy Ousmane Sonko loolu du ko def ci ay kii kese mi ngi ak ay preuve yoo xamante ni bi moom la ñu yor procès bi romb na am na sénégalais yu bari yoo xamante ni bi demoon nañ seetaan yi waaye ba tey gisuñu benn preuve boo xam ni soxna si génne na ko juy firndeel ni kat tëddee nañ ko maanaam ay waxi kese kese kese te kat waxi kese yooyu la waxoon ne ñemewut jàkkaarloog juge di wax ay waxi kese kese waaye mi ngeek ay preuve tolloon na sax benn période mu ne bu kilifa diine yi waxut nit ñi waxuñu man dinaa génne samay preuve mi ngi ci sama téléphone ma def sama justice su bopp et pourtant gisuñu fa dara li nit ñi doon wax gisuñ ci lenn procès boo xamante ni bi téye na réew mi luy tollook ñaari at yoo xamante ni bi Sénégalais yi dañu stressé nit ñi xamuñu ci lu ñu ne ci gone goo xam ni tuumaal na nit viol nekk nag koo xam ni man mooy li gën a yéeme koo xam ni danga ne dañ la viole mu naqari la ba nga dem ci yoon nga toog di nettaliwaat ni ñu la viole ba nit ñi ñoom ñooy jaaxle waaye yow moom ronkoñ tuuruwut amut lenn loo xamante ni bii moo la gëtër kii naqari wane nga sax ci sa yaram ni am naa lu ma métti c'est que loolu mooy li nga xamante ni bi mooy li gën a garaaw parce que am na nit ñoo xamante ni bi jaar nañ ci ay viol mu nekk loo xamante ni bi lu métti la ay atti at lay def mais bu ñu koy waxaat sax du ñu mën a téye seen bopp wala du ñu mën a yeggale wax ji mais yow nga ñëw di ko wax avec la manière façon de le faire ni koy waxee di expliquer ba mujj gi nit ñi ñoom ñooy jaaxle mais yow moom amoon benn jaaxle boo xamante ni bi am nga ko ci ñaawee ba mujj gi nit ñi ci seen jëmmi bopp di wax naan lañu dégg ëpp na nit ñi ci seen jëmmi bopp di jaaxle kon li lan lay firi démb tey ñi nga xamante ni bi ñoo doon wax démb di wax di yëkkati ay preuve am ana tey lan lañuy wax defe naa ni am na xam ne moom daw nañ ca ba ñu amee tànk parce que ba ñu leerloo ba yëkk nii kii defe naa ni ñam daan àndal am na ci ñoo xam ni rocceeku nañ parce que peut-être am na ñoo xam ni mën nañuy ànd ak nit waaye nag am na yoo xam ni xajuñu ci yenn gàcce yi te loolu feeñ na ci li nga xamante ni bi moom la ñu gis parce que ñaari at nga téye ko Sénégal gi yëpp di wax ay procès boo xamante ni bi tey di wax ay preuve ñu ñëw ba yegg si ndekete lépp ci waxi kese lay yem loolu vraiment nekk na loo xamante ni bi lu doy waar la waaye nag ñuy wax sénégalais encore une fois di leen fàttali ne leen ay nit dañ cee ñàkk seen bakkan warta doom rek loo xam ne lu ñuy taxañ la déedéet jàpp naa ni leneen war naa tàmbali ana ñan ñoo ko dugal ci lii parce que am na ay noo yoo xam ni moom cité na leen ci ay audio yoo xamante ni bi nangu na ni audio yi moom la donc ña nga xamante ni bii ñëpp bokk laale nañ ci mbir mi pour réew moo xamante ni bi réew mu sérieux lañ faawu lijjanti mbir mi ba mu leer nañ ngir bakkan yi nga xamante ni bi loru nañ ci